parlement bi moom am na place bu am solo ci nga xam ne kay mooy keneen que république bi ba tax na moom day voté ay loi ci assemblée national di contrer jëfu gouvernement bi di am ay enquête judiciaire bu ko soxlaa ci wet woo nag am na liggéey bu nga xam ne naam sax ñoom lañ xaar ci ñoom maanaam ay motion de censure daal di koy jëmale ci euh, ilimaanu jëwriñ ji ak gouvernement ba tax sax bu delloo ca wàllum vacance wala pouvoir bi wala ay haute trahison ak jugement bu xamoo delluwaat ci seen ministères yi institution parlementaire bi ci la amee pouvoir judi bu am solo daanaka sax ci wàllum politique am na ko ci parlement bi nga xam ne dañu sekat député yi peuple yi ñoom askan wi sax moo leen fa nekkal naam waaye tamit nekk nañ ay ponkali électeurs ñoo xam ne kat dañu yor baatu askan wi waaye ci noonu tamit élection présidentielle yi ma ngay daal di yaa toftalu ak di niroo amul benn candidat présidentiel bu nga xam ne ma nga bàyyi ko assemblée nationale waaye tamit ci euh, jàng rek Sénégal naam ci histoire gis nañ ne loolee sax na mu amee nga xam nag moo fi meloon noonee mooy Moustapha xam ne bokk na ci moom sax dem na ba nekk président assemblée nationale waaye nag moom ci boppam mooy fal buur daan defar buur ko ci mel ni Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall waaye tamit gis na ni ki nga xam ne moo fi nekkoon Mamadou Dia ci nga xam ne mooy wetu assemblée dafa mel ne fulaalu leen war ñoom seen bopp rek dañuy gis ne ñi nga xam ne ñooy administrateur civil ay professeur d'université santé ay cadre ay experts ay techniciens développement ñoom ñu ëpp lu ñu samp seen ndënd kon ak lu mënti xaw gis nañ ne ci nii mbaa ci ne ñoom tamit war nañ cee ci liggéey lu fi mel ni rek atum 2024 bii kon ci assemblée nationale moom mi ngi contrôler jëf gouvernement bi naam waaye tamit war nañoo xoolaat seen doxalin kon kon acteurs yu bëree ci wàllum politique bàyyi ko ci société civile ñoom dañoo bëgg rek candidat nga xam ne ñoom ñooy sam seen nënd ñu bëri tamit nasaraan waaye tamit ñu liggéey ci conclusion ci ay charte ak i assise waaye gis nañ ne ak xeetu xeltu bi nga xam ne moo am ci ñu bëree bëri daal di indi ak dakkal ci li nga xam ne kat moo fi yàggoon a am ñu bëri yaakaar tam parlement bi nag moom nekk na chambre bu nga xam rek taccu rek moom fa daal di jëpp wala sax daal di mel ni ay rajo yoo xam ne dañuy enregistré rek daal di yóbbul ki nga xam ne moo di nguur gi